waaw soo xoolee Niang Franc mu nu mu mel euh, dafa bëre ay ay kii ay faro jun bi moo xaw a nekk entre géej bi ak euh, faro yi ñoom li ñu soxla ki suuf suñ ko jëlee ci jun Niang bi ndoxu xorom bu nekk ci géej bi day dugg ci faro yi dugg ci plantation yi dugg ci dëkkuwaay bu boobaa day indi gàllankoor bu bëre ci suy dundum loolu moo tax bëgguñu zircon bi mais déjà so xolé ñun lu ñuy ay baykat lañu ci bay la ñu donc ñu euh, si bëre lu ñuy dundee mooy ceeb te soo dund bi mo tayé ndox bi suñ ko dundé rek ndox bi day dem ci faro yi ci habitation yi du ñu xamné euh, dañu am ay orange am ay orange ay mango et tout ça bu boba dañuy parce que nguur bi dafa fi

mais am na ñoo xam ne ñu ngi yore yu yore ay jaas yi bugg quand même ak ñàkkal waa dëkk bi lu tax buggul kenn dugg Niafara pour dem xool lu gars yi bugg woon ci seen écosystème donc violence bi moo tax ñu ngi ñaan nguur ji mu moytu bu baax mu moytu bu baax euh, jéem a régler problème bi balaa mu gëj parce que fu ñu toll nii su fekkee ne waa Niafara dañu jóge teg ñoom ñu jël jaas yi affaire yi mënoon na ñaaw mënoon na si am ñu bëri ñu siy dee te SAPCO société boo xam ne pour aménagement rek la warul euh, nag euh, di tabax ay hôtel yu mag wala di def euh, yenn yi ñoom déjà fu ñu buggee tabax si société bi ñoom fu ñu bugg jël mais foofu aire marine la te lu gën a doy waar ci affaire bi en même temps foofu la ñu a gasu zircon bi pour ñun am na lu lax ki laxu ci ginnaaw SAPCO bi quoi. carrément dafa am lu du du si la xëy na ñoom dañuy jël suuf si suñu paree jaay ko Arsenal pour ñu ñoo exploiter zircon bi te soo xoolee tamit ñoom fu ñu bëgg jël soo xoolee gan yi ñoo fa baree te gan yooyu ñoo yore suñu dund moo yore suñu économie muy suñu école muy suñu hôpital muy suñu ñu nekk ñooñu ñoo ñuy jàppale ñooñu suñu demee lu ñuy mel nguur bi defu fi dara defu fi dara gan yi ñoo ñuy dimbal ak suñu ressources yi zircon bi mu ngi a à l'extrême wees soo jógee ñafaraan dafa sës ak géej bi ak bolon bi soo jógee Gambie Kartong ñoo ba Abéné bande boo xam ne six kilomètres lay def juróom benn kilomètre ak trois cent mètres de large mais fu mu nekk dafa bëri ressource yoxoos fa la nekk euh, paañ fa la nekk jën yi fa la ñu nekk voilà jën yi tamit fa la ñu nekk parce que mangrove bu am na fa mais en même temps aussi y la mer te soo xoolee ci suuf fa la nit di dund faro yi fa la ñu nekk plantation yi orange mango yi tout ça fa la ñu nekk te habitation yi fa la ñu te soo xoolee ñafran soo xoolee ñafran borom bi dafa ceinturé dune bi yenn saay sax ndox bi su baree grande marée ndox bi day tëb mu dugg ci faro yi mais avec peu de moyens ak pelle yi bêche yi tout ça dañ koy boucher mais lu pelle ak bêche mun a boucher soo dindee vingt cinq mille tonnes de zircon ndox bi day jàll boobu catastrophe la te soo xoolee Kafountine ba Ziguinchor baafon la da ngay gis jinaak yi nekk si kaw faro yi nekk ci suuf nga dem eh, bay nekk si kaw faro yi nekk ci suuf jinaak yi tamit noonu la ñuy nekk ci suuf faro yi nekk foofu donc ndox bi mun wóor na woon na taxaw ñu fara day continuer Casamance rek ñu ñoo menacé population bi day day dem. comme bi Tigna Fara la nekk Tigna Fara la nekk te maa ngi leen di fàttaliku ne depuis l'acte trois de la décentralisation sous décret présidentiel. Mhm. Niafran est un village autonome avec un chef de village. Certes, Niafran était un quartier, mais Niafran n'est plus un quartier. Sédio était un département de Jugensho, Sédio n'est plus un département. Kolda aussi était un département de Jugensho, aujourd'hui Kolda n'est pas un département, c'est une région. Donc les choses ont évolué, le monde a évolué. Euh, Niafran, Mani Lako, tout ça. Bon, Mani Djogou qui l'a Niafran, dès que le, jour comme il

su ñu demee ba di di di mat da ngeen di ne euh, mais defal ndànk defal ndànk parce que lu tax parce que ñoom dañu newoon non au zircon mais mais mais mais boobu moo ñëw parce que euh, gars yi dañu ñëw ak xaalis bu bare xaalis bu duuf jox ko yenn notable yi jox ko yenn yenn yenn jeunesse bi même le président de la jeunesse ay ay ay ay ñooñu après def benn comité sous forme de de dañuy dañuy napp ñeneen ñi minorité, minoritaire du ñëpp ñu si ëpp bëgg ñu mais minorité bobu quelques notables bobu ak quelques jeunes yoyu ñooy def pression sur le reste mais y a la majorité silencieuse ñoo xam ken bëggul zircon du benn amul benn secret corruption la xaalis la xaalis lañ leen jox mo tax ñu changé. administration territoriale sans réserve sans loxo mu ngi parce que ministre des mines bi mu waxee gouverneur dellul ci base bi nga def large consultation pour xool nakal askan bi tollu pour ñu mëna jox autorisation parce que sans maa la ko do wax autorisation son dafa jeex depuis mai 2022 de war renouveler pour renouvellement bi consultation bi ñu ngi dans le bureau du sous-préfet le sous-préfet nous la convoqué nous ñoo ils sont pas, ñoo xam ne dañu pour exploiter jur ko ñooñu la convoqué ñoo le chef de village je ko foofu bu de fa jógee de falsifier PV bi def un mémorandum autour de la culture communauté de Niafran de Kabadjo, de Kunkudian bu Abené.

il a fallu que la génération consciente de pression sur les notables sur les chefs de village et tout ça pour qu'ils reviennent en arrière y compris même la complicité du maire de la commune de, de, de, de de de de de Cafontine. Ils ont reculé parce qu'il y a la pression. Et ce recul aussi, c'est reculer pour mieux sauter. De temps en temps, ça dañuy xool ne on a un coups de téléphone ils ñuy à Yannick pour les, euh, sa cœur, fan la tolou, ñaata attendait nga am sa dimension de tout ça est-ce que vous nous ñu indemniser comme ça comme ça ñu ça la ça, déjà les notables c'est sûr ils l'ont été et même maintenant il y habitants yi habitants qui sont. am na ñoo xam ne suñu moytu dañ leen di jox tuuti xaalis parce que dañuy ne indemnisation mais c'est des miettes on va leur donner par rapport à ce que li ñuy dund et conseil loolu mën ma ko comprendre parce que euh, journaliste moom suñu gan lañu te journaliste moom ñëpp ko soxla

dina porter plainte parce que ça amna ñu dem sama kër ak jaas amna am xamné ñoo xam dañ leen photo de amna am xamné ñoo xam ne xam xam nañ leen carrément euh, je ferai constater par un acte huissier dina wo huissier euh suñu conseil juridique mon gars ak fi c'est pas manifesté il est là à côté nos avocats sont là je vais leur demander conseil euh xool affaire bi nu ñu koy demee pour mbax na doon benn affaire yi duñ ko bàyyi mu de quoi sinon day jëral na nooy quoi